lëmbatee contrat yi ma gis ne contrat bi nekk fii ci marché Gueule Tapée mooy ci contrat bi nga xamante ne moo ci ëpp problème parce que contrat bi ñu ngi ko signé en 2019 te bi ñu signé contrat bi en 2019 dañu waxoon waa ji koy tabax que yow ci fukki weer mën nga war nga war nga achever chantier bi ba livrer chantier bi waa ji dépassé na délai yi waa ji respecté wul clause contrat bi waa ji jël na sax suñu contrat bi ñu ko signé loon bi ko maire bale génnee signé loon dem di ko jaay beneen société te ñu wul tàggu ñu ñëwul wax ñu. lii nag dafa war a dakk bi conseil municipal bi dajoo parce que ñoom ñoom toog nii fii la majeure partie bi ñu dajoo ñu toog ne ma maire di kii lii ay yëfu caaxaan la si mu ne nii jox nañ la autorisation nga résilier contrat bi ñu lié woon ñun commune bi ak kii. alors li ci am mooy acte ñu pose yëpp yóbbu nañ ko sous sous préfet présenté ko ba mu approuvé ko ne acte yi acte yu baax la parce que c'est le seul juge de la des actes que nous au niveau du conseil municipal. donc sous-préfet wax loolu yëpp man maay autorité politique local sous-préfet kii il faut nga woo ko mu ñëw toog ma toog nga toog ñu régler problème mu marché Gueule Tapée bi parce que population yaa ngi may sonal commerçant yaa ngi may sonal man xaw ma lu ma leen di wax parce que xaw ma lu xew ci marché bi